gol dem gelmem. Oradan geldim yeğenin olması. Oradan geldi gilli hakkını ben. endi darlamın hangi hadi hangi. Bundan yoklarda de de. Oh hay derke odanı. Halimin var hep. so neɗɗo wiine holɗunami hay ndeno heɓani laamu wawa wonde saɗa joni nee naa leen. mais président déglu leen. mais président nee na leen. nee naa leen. na xel yi dal. na xel yi bëggoon. nee naa leen laata may jël réew mi sax mënuñu maa xoqatal ginnaaw tey bi nga xam ne yor naa lépp. kon ah. ñun liggéey moo ñu soxal. xeex bi ñu def mooy xeex pour le développement du Sénégal xeex ngir Sénégal raw ci réewu Afrique yi yàlla ñuy baaxee da ngi am de nouvelles ressources pétrole gaz ñoo fekk fi amoon yàlla ñuy baaxee ay nawet yu baax kon loolu moo am solo transformer réew mi fexe ba góor ñi jigéen ndaw ñi ngëneel ci seen dundin ñu yokk ñoom ñëpp loolu mooy sama combat le combat du développement le combat de l'émancipation le combat de l'affirmation de l'Afrique et de l'Africain donc ñun foofu lañ toll bu defee nag wàllu côté politique su jotee rek ñu dem lu ñu war a def te na muy mujjee mooy na ma waxoon gaañ rek ay rek bu mu leen leneen mënatu am parce que pour le moment jamono ji mun nga yàlla may doole bi te nangoo ko ko comme na ngeen mobiliser wu nag taxaw.